xam taxumaa jóg proverbe taxumaa jóg boobu nuyoo la tey maa ngi waxtaan alal ci alal ak i njabootam mm-hmm. mais du tudd njaboot yëpp yi mu am alal dafa am ñett doom muy wërsëg ak muur ak ndimbalal yàlla mm-hmm. alal ñëpp am nañ ko alal ñépp am nañ alal mm-hmm. sama waaje dama ne ko ndax yaa ngi sant yàlla mun a yorul dara ma ne ko damaa am benn waay bu nekk bitim réew dafa am problème mu bët est-ce que bu ñëwee jënd sa bët bi deux cent millions da ko jaay benn bët bi mu ne xalaatuma ko man ko kon am nga alal am nga deux cent millions. dëgg la. ma ne ko est-ce que bu jëndoon sa nopp bi benn cent millions da nga ko jaay mu ko xalaatuma ko man ko am nga alal kon yaa ngi ay milliards. waaw oh. kaas yee wuute waaye ku xëy guux. Mm-hmm. santal yàlla bu baax kon am nga alal. gaa yi nag dañoo jël seen seen mbir yëpp def ko ci alal. Mm-hmm. baa doon yaa naan alal alal sëriñ sa alal alal ba bàyyi yàlla. wër alal di jal di jal di jal di jal di jal ba fàttali na jal bu mag bay jalla jalaaluhu mm. mu tasaare lañ jàll ron leen ci biir jàll bi ñu jéggi seen jal tasaare lañ jot a jal mm. kon alal ñépp am nañ ko mm. waaye li jara li jara ñaan li li doom yi lay waxtaan doom yi moo di wërsëg ak muur ak ndimbalal yàlla asma wërsëg ñu bëri am nañ ko waaye taxuñu jug carrément wërsëg asma boo jëndee yaa moom. Mm. ku ne am na wërsëg ñu ñu bëri am nañu wërsëg macha allah ku xëy ak sa wërsëg. Mm-hmm. boo jëndee yaa moom boo jëndee portable bi yaa ko moom sa wërsëg. Mm-hmm. waaye boo nelee fàtte ko. boo dee ñàkk nga ko. kon wërsëg taxut taxul ci kenn du jóg. boo fàtt boo nelee nga ko boo dee ñàkk ko dañ koy miraas. Mm-hmm. li yi gën a bëgg li li tax a jóg nañu moo di muur. yàlla nga ko muurloo portable bi jënd nga ko yàlla nga ko muurloo dem ba ràpp ci yow. habillage benn ba màgget. Mm. dem ba lépp ràpp nga a ah muuroo naa portable daf na ci man quatre ans looloo jarañaan muur. Mm-hmm. yére bi bees na de yàlla nga ko muurloo mu dem ba ràpp ci yow. Mm-hmm. muur a ngoog yàlla ko muurloo nawet bi neex na rek dugub ji mat na yàlla nga ko muurloo. Mm-hmm. loolu mooy muur. ku ñu bëri denc nañu alal yu bëri ci jàkk ci biir banque bi te duñ ko muurloo. te li nga lekk rek moom nga muurloo li rees lekk mu rees. kon alal ji nga jal ci biir banque bi te moomoo goo ko ndax muurloo goo ko. kon bu demee ba lekk ko ba mu rees macha allah moo dikk na. waaye tamit bi gën a bi gën a am solo mooy ndimbalal yàlla ci doomu alal yi la bokk. ñetti yooyu lay waxtaan mooy wërsëg ak alal ak wërsëg ak muur ak ak ak ndimbalal yàlla. Mhm. asmaa ndimbalal yàlla. li gaa yi daj doo ko daj. te li yi faj ngay faj. ku yàlla dimbale rek mhm. nga ku yàlla dimbale nga waaw. ndax gars yi mën nañoo xëy di daj lu nekk coono gu nekk waaye yow macha allah doo daj lu bëri te fépp fu gars yi taxaw da nga fa taxaw lu gars yi bëgg a faj nga faj lu ko raw. Mm-hmm. kon gars yi mag ñi fi nekkoon yàlla dina leen dimbal. Mm-hmm. da ngay gis koo xam ne ni tëdd na ci xabram jamono ji mais xabram day joxe dépense. Mm-hmm. nga dem ci xabru Sëñ Fallou Mbacke muy jox réew mi ñu bëri dépense. nga dem ci xabru Cheikh ba Cheikh ba Thioune mam Bambi. ñu fay sànni alal ju bëri muy jox ñu bëri di kon kooku dimba ñooñu la yàlla dafa dimbala moom ak ñooñu ñu mm-hmm. gis koo xam ne tukki boo xam ne fekkewu ko mm-hmm. di nettali tukki si Ahmad Bamba moom rek moo demoon ci tukki ba mm-hmm. di ca am basin euh, nii day daj lu mat huit cent mille wala ay 4 millions pour bëgg siiw te mënta mënta siiw gàmmu gi paas nga gis maire bu jël micro ñu laaj ko noo tudd mu ne man la maire Binta Faye dëkk localité nga faru ah nga faru géej daal ci siiw ba am ci ay millions ci barke kan sëñ Moustapha Sy dëgg la kon gis Moustapha Sy nga kon mag ñi yàlla daf leen a dimbale c'est moo képp ku ba ab barke ci ñoom rek macha allah wala nga am ci loolu rek yàlla na la bokk ci ndimbal googu kon mag ñaa noonu yàlla dimbale na leen mm-hmm. xoolal ci barke sëñ Moustapha Sy maire bi am ci loolu te nit yàgg naa dem ci sëriñ naa ko ñaanal ma mu siiw fu ne mu dugg fa te mënta siiw ragal yëpp yàlla la mm-hmm. ragal yéex mm-hmm. yàlla la. Mm-hmm. waxtu waa jot bis ba jot foofee la waroon jaar. ñu ngi doon de. loolu la waaj di naan léeg-léeg gas nañu. Ah. yoon bi ndox mi rek lay xaar mu jàll. Uh-huh. moo tax patience baax. gis nga de mi ngi noonu moo mbir mi jarta forcé. dëgg la xaw a bayre bayre barte jarta forcé. bu dee sa bu dee sa papa ñaanul la bu dee sa papa dafa ree ci yow bàyyi bàyyi ree nga am bayre mm-hmm. bu dee sa papa réewul bu ko forcé xam nga bayre bu ko bëggee am. Mm. boo ko bëggee am weesul nga dem sa taal taal sa néeg yaay doom ba doog sa doom ba. sa yaay bu amee matériel yu baax am armoire am lépp boo taalee sa néeg yaay toog ca dóom ku ñëw na maa rek maa ko taal ñëpp lay xam bayra ngay am bayra jëru di forcé gis nga dem moo tax gis nga mi ngi noonu nga da ngay génn fii dem bitim mhm. gis koo xam ne ni soxna Fall du wax sax nii lay def ay loxoom nii dëgg la am ci million nii xaw ma nan xaw ma nan laam du wax nga gis Sénégal gis ku fiy wax weerub lëmm pour nga am sax mille francs problème la foo dem ñu ne ay eh, noppi da bëri wax waaye gis ko